Un week-end exceptionnel à l'arène nationale en live pay-per-view sur seen affiche.com mbokk mi ñu tàmbalee ci samedi 14 janvier 2023 ci diggante Marley ak Sokh Baba Jaxal Naaru Sokaas drapeau police nationale en live pay-per-view lay doon ci seen affiche.com le pass c'est à 5 euros 99 ñu jublu nag ci le dimanche 15 janvier 2023 Zarko war a jàkkaarloo ak Ada Fass drapeau monsieur le ministre Matar Ba Paf production moo woote toujours ngeen mun ko am ci seen affiche orange.com et le pass c'est à 8 euros 99 pour ñu nekk ci diaspora bi 2500 francs ne fii ci Mara Mara maa ngi lay ñaanal yàlla na yàlla may ndam si kaw Sokh. Sokh dana dana yóbbu toog seen loolu bu kam may day xaar doole boobu na ko jaay ñeneen. doole pour dale mais xam-xam baa ngi fii Mara mun na bëre am na kàttan am na doole mais Sokh doole mënu ko jaay Mara Mara nañ Mara nañ ñaanal yàlla mu ndam li ndam li fii dañ koy téye géewaay di ko feddoo marché bees. sarax yaa ngi noonu rek gaa yaa ngi génne ay sarax tabletu nen ngay gis noonu tabletu nen lamb nag moomoo lamb gaa yi ko méttiwul waaye méttiwul lamb boo xamee boo amee sëriñ bu xam saraxu làmb li des yëpp méttiwul waaw saa xam saraxu lamb nag looloo jafe. ay ca Marley ñu ngi ni ci buntu këram gis nga gaa yaa ngi noonu mafia bi xarit yeeg am jàmm yeeg boo yeeg supporters yi ak sëriñ yi muy waajal bés bu rëy bés bu mag digganteem ak Sokh le golden boy de Pikine Marley moo war nekk revanche par procuration diggante boo Niang bala Balla Gaye 2. noonu saretu ndox saret saretu ndox ay ca marle ngi noonu moom ay ca mbër naa la marle ngi noonu moom yore tablette nen di ko saraxe booy yi bu leen xëccoo nen bi balaa moo toj de léegi noonu moom di saraxe nen ñi ndeysaan di sangu di def ay bain di waajal bés am combat capital ma ngay saraxe nen tablette la de muy saraxe par benn benn par benn benn par benn lay saraxe moom benn par benn waaye xale yi nee leen bu leen xëccoo balaa moto Marley benn par benn dinañ toj nen yi ay xale yi aca tablette ba jeex na tablette ba jeex na ma nga ca ndox ma di saraxe waaw Marley ngi noonu moomoo Marley ngi noonu ma ngay far ndox ma ndeysaan di ko sànni xale yi di saraxe di sànni ndox mi xale yi di capté ndeysaan mu jub bés am combat capital combat bu rëy cey ndaal yi ne ko ci cey ndaal yi ma ngay for ndox ma di saraxe moom moom làmb la ne ko ci làmb la ma ngay saraxe ndox ma ba léegi mu mar de boo xoolee yaram bi xam ne liggéey na ci combat bi forme mu ngi ci état waaye ki muy bërël ci sarax xale yi ndox xam naa ne li fi wàcc tey ci ndox daal bëri na ndox nag jàmm lay wundu rek jàmm ak salaam di seddal di seral ma saraxee saraxe ndox moom moom tëmbër ziar naa la maa ngi ci law ne sant wér a wér da de waaw gis na nekkoon sa bagage rek nekk si wàccaay combat rek loolu moo ñu tëwoon quoi mu am combat rek jub mu nekk combat capital digganteem ak Sokh waaw combat capital la di wax marle lamba séedi rek mais waroon sax bëri Sokh mais am tardement si lamb mais di ñaan yàlla su ma defal ñu pare nañ li ñu war a pare yow ak suñu ndax xam na xam na làmb yi fu mu ndax maa dund làmbam combat bi ñu bëri dañ gis ne Sokh da ko xaw a ëpp doole ko maas est-ce que du ko handicapé doole kenn du ko gis si biir lay nekk te buñu si biir ko dañuy xam ne ku ko ëpp doole te mara liggéey liggéey xam ne nii kenn ku ñu war a daan ndax bunt làmbam la ko war a wane da war a attaqué Sokh wala dafa war a xaar Sokh mel ni ku ragal lu Sokh nee jaay doole daan ko ñu ngi xaar lu mu indi fekk ko si réalisateur bu bëree mu duma ko bu bëree ni daan ko si kàddu suñu borom si doole Serigne Sall ndax Marley xale la xale boo xam ne nii maanaam yàgg doole taxul nga daan ko yàgg doole taxul nga daan ko ndax dafa bëree te daan mbapat te yéen xam nga li may wax baax a baax di ñaan yàlla géejuwaay yëpp génn jàppale ko te xam ne doomu géejuwaay la amul lu dul géejuwaay di ñaan Balla Gaye suñu borom dafa ko jàmm te xam ni Pikine la ak géejuwaay Pikine ak ah, du yomb de. non Bogar. yàlla baax na daa mooy mën a. yàlla yàlla dafa jàmm. daa mel ni Pikine mooy mën a barki Serigne Sall tey lépp di leer. bàyyi laa suivre. ok ñoo ñëw ñu ngi lay di ziar. maa na maa ngi leen dellu ziar bu baax ñoo ngi si jàmm. bu mel ne yaay wéjuru buy bëree lan ngay yëg yaa booy. a ah, xanaa li nit di yëg ci doomam rek bu amee kii bés. waaw. Euh, Marley maanaam est-ce que est-ce que la maanaam loolu mën a wax tuuti si moom mënu maa wax sax fi mu nekk nii. xanaa di ko ñaanal ndam rek ba ngeen ñëwaat. xol bi mënul wax. ma koy ñaanal ndam rek ba ngeen dellu si. Mhm. ci kàttanu yàlla ma xam ci moom mooy fit. Mhm. am na ko. ba muy xale ba tey. Mhm. am na jom am na ngor. lekkul bàyyi kenn. loolu rek laa mën a wax. soo génnee gis xale yëpp bootu ci ginnaawam nii di di di di yuuxu ngir moom lan ngay yëg. ba ngeen dalee gis muy dem stade ba léegi mësta ànd ak mag sax su ma boo ma ne tey ji xale yi dañoo màgg fekki ko. moo tax nag euh, ngeen xam ne rek moom nit ku baax la nit koo xam ne nit ku sedd la nit koo xam ne nit ku dal la tam du jàppalul kenn dara waaw loolu moom lu ma mën a àtt ci moom la yàlla na yàlla guddal sa fan yaa amiin amiin amiin ca noonu la demee moomoo kooku mooy wayjuru Marley gis nga témoignage ak ñaan yi mu def ci moom yaakaar naa ne tamit loolu la loolu la képp képp war a war a war a sàkku képp kuy kuy kuy kuy doom rek war nga mën a sàkku tey ah, say wayjur gërëm la ñu ngi ànd ak benn grand lay ziar. waaw salaamaaleykum kilifa yi na ngeen naka ngeen di waajalee bés bi tey. waa man tey nag maa ngi fi teewaay ñaari casque mhm. ndax dama fi teewal monsieur le maire Bara Gaye honorable député cinquième vice président assemblée mhm. man may chef de protocole mhm. dëkk ak Marle Marle nekk na xale bu yaru tey jii sax xam na ne contrat moo nu boole mais làmb ji dañu ko noroon a bàyyi ndax accident bi nga xam ne moom moo am. dal ci nga xam ne ci jaamu yàlla yi ñu gis li ci sëñ Mountakha def ñu gis li ci sëñ Baye Sy Mansour def waaye comme nag président Macky Sall def na ñetti fan muy déy bi ñu respecté ko waaye dañuy ñaanal Marley yàll na ko sunu borom la fal cat banlieue yéen la mel mbër moo xam ne la amul poos lu mu am da koy joxe boo gisee tey gone yeeg mag ñi tey imaam yi ñoo moo woon ak délégué de quartier yi pour naa leen yóbbul pour waxal leen ni Marley ñëpp a ngi ci ginnaawam di ko ñaanal yàlla na ko sunu borom la fal di leen wax nag ne làmb ji ñu indi géejawaay ñu indi Pikine doomi géejawaay di ko bëre ak doomi Pikine ak doomi Parcelles ñun ñoo bokk nday ak baay ndax stade bi ñun ñu ko indi amul ASC Pikine amul ASC Guédiawaye ñun nanu dépassé loolu te bu nu bëree ba pare defaat ci fair play amul la gay amul Boy ñaa ñoom ñëpp ay nitu banlieue lañ loolu daal la ñuy am ci li wax te yéen it ñi ngi rafetlu seen liggéey. 8TV waaw 8TV. ah yéen lu baax rek ngeen di am ndax 4 plus rek lay mën a nekk. yàlla na leen sunu borom la fal cat ndax da ngeen a bàyyi lépp kenn ñëw fi yéen a fi ñëw na leen yàlla may ndam affaire bi banlieue bi la dan koy daan duma ko daan ko. nee na da leen di forcer de jaay doole. non déedéet jaay doole baaxul est-ce que dégg nga li ma wax koo gis muy jaay doole sunu borom day faral ka ca gën a doon gone loolu rek moo am solo nan ko def ci fair play ki am ndam te ñun ñooy am ndam bu soobee yàlla. rendez-vous ngoon. waaw ngoon la waaye fii ngeen di ñëwaat suba ñu defaat li war a defaat defaat ko ba mu baax. waaw ñu ngi ci nuyu nag sunu autorité yi ñu jàppale yëpp muy muy Badou Faye di Abdou Kafour Touré di Mbayloo di Pape Gueye di Baara Gueye di ministre Amadou Wat di Laay Sagna di Papale ñi ngi gërëm ñëpp bàyyi woon kenn Oumy Khayri tamit ñu ngi koy gërëm jàpp na ci bu baax mais Pape Gueye mention spéciale ak Mansour doomi xàddam loo moom daanaka def na lépp yàlla na ko sunu borom la fal cat. am na solo. ay ca noonu la demee Marley Momo. na. mar génnaat na ma ngay saraxe ma nga noona di saraxe mburu bi par ak daguñu mburu bu par kilo par kilo la ko def di saraxe kilo mburu moomoo ay ca way juróom a ngi noonu yaayam a ngi noonu moomoo di génn ci ginnaaw ndeysaan nee na Marley buy bëree xolam day tooy day stressé ndeysaan moom marle mu ngi noonu di saraxe mburu mi par kilo par kilo xale yi kenn mënu leen organiser xale yi fekk nañ barrière bu dugg de xale yi rek ay ca ma ngay saraxe ma ngay saraxe mburu moomoo par kilo par kilo la koy def ndeysaan marle ngi noonu xoolal xale bi ñu ko andi moomoo xoolal xale bi ñu ko andi xoolal tout tànk bi ñu ko andi ndeysaan xale bi sol yére yére bu ñu def marle marle ngi wax ak moom ndeysaan xale baa ngi noonu ab tur tànk la sol yére marle ndeysaan xale baa ngi koy ñaanal xale baa ngi koy ñaanal xale bi ñaanal na ko ay ca ndeysaan moom marle ngi noonu di waajal bés tey làmb tey làmb ay ca rakk jaa ngi noonu réparé ma ngay sol suuf si butel nee nañ mbokk ndee koy jur waaye bi lay dégg la rek jàngi noonu ca sol teel ba de mooy réparé réparé na nga bitim réew toog waaye rek yàgg di ko ñàkkante di ko jaayante réparé ngi noonu moom ma ngay sol ba léegi de daa mel pareegul dafa mel ni pareegul de butéel ba am na lum ci rokos xam nga li ñu naan rokos waaw ma ngay sol suuf de sol na ko suuf ba mu fees Marley ay ca ma ngay saraxe mburu ma moom janaat di saraxe mburu Marley nga noonu di saraxe mburu ma moom ma saraxe mburu joxe na inde ba Aïcha ña ngi koy bëggee muy ndeysaan mbër bu dal mbër bu am respect ci nit mbër bu am yëg-yëg ci nit moom Marley waaye ki muy bëreel tam idem muy sox mbër bu am courtoisie yi am coloré Aïcha moomoo ñu ngi nag ah ak beneen champion ñu koy wax Arsenal borom Zawal ah borom Géejawaay maa ngi lay bëggee. borom Gambie Boucar ziar naa la. ci loo ne. sant yàlla gars yi. naka naka naka naka waaw bés bi bés bu màgg la si ñun bés xanaa di ko waajal. liggéey na def na li ñu si war a def yëpp. xam nga xam ngeen xam ngeen sa waaw soq. waaw mën na bëri mais àggul si torop bi. àggul si torop bi ah, si torop bi àggul si torop bi. kii dafa mën na bëri bi rek doyul. non trop bee ëpp. trop bee ëpp waaw te kii mi ngi moom. dégg ngeen li mu wax nee na da di jaay doole. moo tax ñu koy daan bu soobee te dinañ ko daan soq méttiwul moo gën a neex a bëri si arène bi. méttiwul maa la ko wax. ay soq la de. non bu ko si kor soq méttiwul bu soobee dina xam ne soq méttiwul. waaw doo leen ko non xeebuñu ko moom moo xeeb te loo mu laq sa daay barki Serigne Touba tey dina comprendre léegi yàggatu si kanam tuuti mu xam ne ndaanaan lay bëreel tey lu nu wax moo aay si luur yàggatu au jour viendra bientôt léegi si kanam ñu xam lépp dëgg la. Ah, luur bi a nooy si luur yi wax naa la ko léegi luur bi gën a nooy si luur moo nekk luur bi soo na très bien xam nañ ko bu baax aka ñu koo xam. barki Serigne Touba xam nañ ko bu baax moom. soo xam ci moom aka bari li ñu xam si moom aka bari. Ah. te day comprendre léegi si kanam. sa kanam dégg bu bientôt ak gay ay ca noonu la demee moomoo añ yaa ngi noonu ñëw boolu añ yaa ngi noonu gars yi di dugal ci biir staff yi mën a añ mbër bi mën a añ wala gars yi di dem stade ay ca boolu yaa ngi noonu di yéeg moomoo ñu ngi nag ah, ak koo xamante ni yaakaar naa ne léegi gars yi ñu ko ñu ko commencé bàyyi xel ñu koy wooyee lamb dëkk Géejawaay grand bi ziar nañ la. waaw daloo ziar di nuyu gépp di wax salaamaaleykum salaamaaleykum axlu monde entier. Uh-huh. waaw. lu waraloon teewaay bi tey Kër Marley. non kii sama école la ne man maa yor Marley. yaa boo déggee làmb bu école Papakan. maa moom ñoo bokk école bi. mais tey Géejawaay dañoo nekkatul si ay jafe-jafe. Uh-huh. mais yàlla mooy indi jafe-jafe. mooy indi bànneex. mais booy bi. bala ñu koo xam muy si kanam booy bu gëmee boppam mën naa téye li géejawaay lu bëri tey la combat combat bi moo gën a am solo si combat am bii amul luñ si moom bu mu si def faay mais bu si deful faay bu gañee combat bi dina am fu ko yóbbu parce que soq tamit ku ko xam xam ne dafa bëgg bet combat bi parce que daa jóge si defet te Pikine daa jaxasoo fan yi te daa bëgg bokk si course bi waaw kon combat bi ku la ne day yomb rek day nax boppam. jaay doole bi mu wax ne da koy jaay doole Marley. non loolu loolu loolu loolu waxeen la rek mais gëm ma ne ko def sax parce que mbër da nga koy séentoo fit mu ñëwee l'asper waaw mais jaay baaxul loolu woykat yi sax way ndax amoo lu mu joroon. qualité soxla lan non qualité yi bari na. parce que luur na diis na benn. te am na fit ñaar. te am na tuuti bëre. loo ko bañ bañ xam ne soq day bëri. kon Marley ban stratégie la war a mën a bëri ak moom. Marley da kaa gën a wóor bëri. mais dàq koo bëree sax mais Marley da kaa gën a wóor bëri. maanaam mën na bañ a def lu bëri tagg lu tuuti def ci lu leer comprendre kon doole ju bëri ji du si am xam du si bëri. waaw yaakaar ne bu ñu jàppante combat bi jeex. benn naa la benn rënkum la maanaam mosul jàppanteeg nit ñu ñëwaat ah soq tamit mosul jàpp mu bàyyi kon ñaar ñooñu buñ nee rënkum day neex xam nga lu may ñaan mooy supporters yi il faut ñu dal xam ne affaire bi ñun ñoo ko bokk. yem si rek. yem si supporter kese booy yëngal si biir. ñoom ñu yëngal si kaw c'est ça le problème. combat bi du niil. niil. Ah. bon man la làmb waat naa si làmb ji dama koy dressé mu jub kon niil. bàyyi ma dara si xeex dinañ bëri. Ah. bon ku si niil dootoo bëre waat la dëggeere nga nee toog. làmb ji jëratul neexal ñun xoolal yow li nga dagg sa paas ñëw ba fii di interroger bu la leeroon na niil la di nga dem bu dee ñëpp niil la foo jëm. gañ jël la teg jeexal ku ñemewul génnal. doole yemul. à suivre làmb à suivre. ngi noonu yow Sa Touba yegsi de dégg nga sil Sa ngi noonu de Sa Touba ngi noonu di dugg andi ay bagaasam parce nga noonu butéel yi mu ngi noonu ay 10 la nag moom la Sa Touba andi. andil marle saaku yaa nga noona saaku yaa nga noona Pape Thiam gars namoon ko loolu nag ko jën ko gis mu xawoon tawat waaye dafa mel ni nag ah, léegi alhamdulilah mbër ñoo ngi lay bëgge waaw Boucar maa ngi lay fay du wax baatu auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim waa sant yàlla daal yee ñu ngi sant yàlla bu baax daal waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a waajal tey bis bu ñu bis boo xam si suñu grand moo koy waajal muy mare ñu koy ñaanal suñu borom defal ko ndam di ko wax ni géejawaay yëpp a ngi si ginnaaw te xam nañu incha allahu rabbi ndam li dina ko indi fii quoi. seen relation yéen ñaar. waaw ah, suñu relation dafa yàgg quoi daanaka ba ñuy ba may xale ba léegi moom laa xam amaana bu mu duggee si làmb sax moom génn ci rôle bu am solo waaw moo taxit ndam rek laa koy ñaanal quoi te gëm naa ne li nekk si moom bu ko appliqué na nekkul ko moo ñuy téye. dëkk nu mbër ku ne xam ne dafa xaw a doy waar des fois dem bari rivalité dugg wala leneen ak leneen dugg waaye dafa mel ni loolu yëpp maanaam am na daal affinité jàmm bu am seen diggante waaw jàmm rek mooy mën a am sama diggante ak moom ndax moom xam na man maay kan man xam naa moom mooy kan mooy li may wax rek saytaane du mos a dugg suñu diggante ndax man damaa doon nit koo xam ne damaa simple sama àdduna dama ko oyofal mooy du ma a revenir moom jamais de la vie samay ñaan yàlla subir mooy li may wax rek mu njëkk maa doon roi des arènes mu njëkk maa fayee ay millions du dul jeex te loolu li may wax nii dama ko subee sama biir xol mooy li may wax dama koy ñaanal suñu borom defal ko ndam daal mais alhamdulilah ñuy tàllal loxo ñëpp ñëpp ñëpp ñu ñaanal ñu suñu borom defal ñu ndam si combat bi. am na combat capital. ki mu am nee na dina leen jaay doole forcing la andi forcing. waaw mm. ah, loolu moom

yenn boolu ful di ko saraxee Marley ngi noonu yenn boolu boolu ful di ko saraxee Marley ngi nee nañ yenn boolu ful di ko saraxee di sant yëg-yëg ngay am non sama ñaari mag di bëre sa ñaari mag di di bëre waaw waaw damay taxaw taxawaay rek rek di ñaanal maar yàlla na ko la waaw ñoom sama mag lañ ko ñaan yàlla na ko yàlla may ndam ragal tëddee xañu dafa mel ni ñoom ñaar tamit am nañ am nañ nuy seq quoi am nañ relation non la rek tey moom tey jàmm amul waaw waaw tey moom day yëngu incha allah. ban ban appel ngay lancé supporter yi. waaw non à la violence rek. ñoo ñëw si kaw si teg si tey. di ñaan yàlla suturaal ñu may dem si barke alxuraan. sa xel dal na si Marley. waaw alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah sànq nee na da ngeen di jaay doole. non loolu waxi boppam la ñun suñu wax lañu ko bé. yàlla yàlla suturaal. loolu la ñu andi tey. yàlla yàlla suturaal yàlla yàlla suturaal. à suivre yàlla yàlla suturaal. Saalum Saalum yi Saalum Saalum yi. ñoom ñëpp ñoo lay woo si combat bi Saalum Saalum yëpp eh. Inch'Allah. Un week-end exceptionnel à l'arène nationale en live pay-per-view sur seen affiche.com mbokk mi ñu tàmbalee ko ci samedi 14 janvier 2023 ci diggante Marley ak Sokh Baba Jaxal Naaru Sokaas drapeau police nationale en live pay-per-view lay doon ci seen affiche.com le pass c'est à 5 euros 99 ñu jublu nag ci le dimanche 15 janvier 2023 Zarko war a jàkkaarloo ak Ada Fass drapeau monsieur le ministre Matar Ba Paf production moo woote toujours ngeen mën ko am ci seen affiche point com et le pass CA 8 euros 99 pour ñu nekk ci diaspora bi 2500 francs pour ñu ne fii ci Sénégal